Mariam tamit du ñu waxtaan ci actualité en tant que Sanekh nekk koo xamante ni yàgg na yëngatu ci wàllum série ñu gis jamono ji coow li am it aussi ci diggante euh, série sénégalaise yi am ci biir Evenprod am ci diggante Leena ak kii nga xam ne moom mooy Ibou Guèye Evenprod ak Mame Mactar Guèye lu ñu suspendre euh, série infidèle pour mu bañ a daw ci benn télévision ban jàngal nga ci am en tant que acteur bu cinéma yàlla na yàlla def jàmm nañ leen def yëfi nit bàyyi yàlla def yëfi yàlla leena suma rakk la am na benn moment sax bëggoon nañ koo jël ci choix bi moom lañu waroon a tànnoon nañ sax pour jox ko actrice principale yëg-yëg bi mu am nag ak fi ko mbir mu toll ba mu def li mu toll moom moo ko xam xëy na man baaxuma bay juge kenn mais li ma ciy jàngat rek mooy te xaw ko te ragal ko ci mooy ñun góor sax war nañu moytu wane yenn yi ci suñuy cër wala di ko def ci kii parce que xam nga image bu ñu la ni cent lay toog soog a tëb dund cent yombul fi mu toll nii say sët dundaat ñeneen ñeneen dundaat parce que image bi ngay jël këf kooku dama ciy bañ a àgg di ko wane noonu nit ñi xam nañu loolu fan la fan lay nekk ci nit xam nañu ko xam nañu fan lay nekk ci nit waaw gis-gis bi dafa xaw a euh, lu làqu la ñu ñu feeñal ko xam nga li war a li war a làqu boo ko feeñalee rek du rafet mooy maanaam ñi ngay romb ñuy tuur ndox ci mbedd mi te war koo def ci biir du duus yi du rafet gis nga tuur mbedd tuur ndox ci mbedd amul amul anim bu ko nit di defee ba mu rafet genre yooyu la rek mais aussi euh, duñ la saaga du la xas du la attaqué dañ lay dañ lay delloo si waat rek dañ lay delloo si waat euh, ñoom maam Maxtaar Gueye ak euh, sàmm jikko yi yàlla na leen yàlla defal sutura defal leen jàmm gis nga nit ki du ni du ni bu lay bu lay corriger rek daf la bañ daf lay dimbali même bu fekkee daf la corriger négativement ni mu la corriger dafa xaw a dëgër trop jëlee ko ci sens bu bu bu baax rek te gis nga pes sax pes ak a metti nit ko na ci nee nañ la réel pes mu saf lool nga xalaat man lan la man lan laa def ba ñu pes ma ak lan laa war a defati ba ba kenn du ma pes pes sax nit nit yéy na kaa ni sax ko ci nit xas nañ ko mu gindiku ci nit am na ñàkk ñu gindiku ci bàyyi wax na ko démb te dëgg la lii dina ko jàngal lu bari ci àddina wax na dëgg àdduna lu négatif amul parce que lu négatif lu ne moo lay jural lu positif nañu ko rafetal rek moo am solo. gërëm leen sant leen ci déplacement bi je vous ai vraiment euh, dérangé même bu fekkee di ngeen jël image siiwal ko. defe naa nit waxuma fi dara lu lu tegginewul wala loo xam ni ku ko dégg jéppi ma bu amee na ngeen ma baal àq yéen ñi may déglu lu ma fi wax tamit mu rafet ba ñu ngi jëriñu ci du sama mën-mën du sama coobare ci yàlla sunu borom la lu fi ñaawi damaa juum na ngeen ma baal bàyyi dinaa la seet si te di nga xam ni incha allah ni rakk jama nekkoon ci yow tey laa ci gën a ne te di nga wér incha allahu rabbi wax yàlla dinañu defal loolu ndax dañ laa soxla ci ñun nga bokk te am na foo xam ne bu fa sa état tollee dañuy sonn dangay sonn delloo si sa xel xam ni séq nañu ay guddi kaani séq ay guddi lem bul jël euh, kaani gi remplacer ko lem gi nanu delloo si sunu xel te rafetal ko te xam ni <laughs> bàyyi àndoo ku nu gën la yàlla defal jàmm